déglu leen jàmmale xibaar bu rëy ñëw na. Hmm. les échos génn na ndëndëm daal de tëgg na yëg leen li xew les échos li mu wax dafa rëy nee na Touba rek la une discrimination positive l' état pose le débat du paiement d'eau état bi nag nee na léegi Touba war nañoo commencé mën a fay ndox. ah maanaam waa kay war nañu commencé mën a jot ay facture di fay ndox. loolu daal la ñu wax moo taxit Antoine Diome nee na tôt la question de paiement des factures d'eau sera mise en temps maanaam tôt ou tard ak fu mu mënti demee rek àdduna dañu mos a dem ba Touba dinañ mos a fay di ndox ñoom loolu la ñu wax ñoom Antoine Diome mu ngi nii mu ngi nii seen bés Abdou Khadre défend la spécificité de Touba et avertit le prochain régime nee na du leen fàtte ne Touba dafa moom moom même de. Mhm. suñ bee ko moom kon loo leen di def rek ak régime bu ñëw na lëkkaloog xool. ci yi nga xam ne mooy warma Touba ak ay yi nga xam ne mooy principe Touba lu leer la sëñ wax lu leer la tegal Sonko souffre d'insuffisance rénale moom la Juan Branco wax nii ca waxtaanam ba nga xam ne def na ko foofu ca aéroport loolu dana ci gën a ñëwaat de. Mhm. ca ca ca ca ca ca Paris dana ci gën a ñëwaat de. ñu mhm. ne ma laa turbine laa turbine ngi nii. <laughs> Sénégal moo bokk ci réew yi gën a cher essence ci àddina bi. ci àddina bi laa wax. Sénégal benn litre essence parce que dañuy wax ne ñaar téeméeri ñaar dërëm la la ciy delloo. ñaar téeméeri ñaar dërëm la la ciy delloo. Sénégal litre essence ñaar téeméeri ñaar dërëm la la ciy delloo bokk na ci dëkk yi gën a cher essence ci àddina bi nee nañu boo demee dëkk bi naan Libye ñoo gën a yombale Algérie ñoo gën a yombale Angola ñoo gën a yombale Égypte. te wax fa dëgg yàlla dëgg yooyu seen échange dafa yomb yomb ba nga xam ne am fa oto daal nekkul titre maanaam kenn du ko góor di di doser di ndax foofu njëgu essence ba yomb fii njëgu essence bi dëgg yàlla ak njëgu dépense kër benn la. Mm-hmm. ndax am boo amee oto bu dee góor nga jàppal ne soxna di ko entretenir. bu feebaree nga yóbbu si mécanicien bi docteur bu faj ko. <laughs> te feebar day tette ci nawet bii ñu gën moo taxit am fi oto wax dëgg yàlla wutu la si sa biir kër bu dee góor a ko am njëgu essence bi nag seer na boo ko defee ko jooy bugaan ngay daal di nee na lii nga xam ne moom la Juan Branco def dafa war a faiblité maanaam maanaam Sénégal daal vraiment dafa am ñaari ñaari yoon yoonu ñu am doole ak yoonu ñi nga xam ne dañoo poofu ndax bu ñu demee ba état Sénégal. di seetaan ki nga xam ne dugg na fi nii dëkk boo xam ne dafa mel ni bayal xul dafa daan dugg ba muy génn mu mel bayal xul dafa daan génnaat ñu ne ko nit jàpp muy dem ñu def ko business class yëpp ko ci avion boo xam ne ca kaw ca kanam la toog paasal ko wàcce ko dugal ko Kilimanjaro yóbbu ko ba aéroport ah wax dëgg yàlla ah, bu président yëpp yemoon nii ni Branco Sénégal yëpp daa leen dugg ci kaso yi ndax kenn ku nekk dina ko wutul lu neex ba mel noonu jàllal ci ma ñëw. juróom-benn fukk ak benn ci patriote jàpp nañ leen 61 patriote yoo xam ne dañu leen a ràpp ci kaso bi tëj leen démb 26 nañ ci woo yoo xam ne dañu def su mandat dépôt ci ñooñu nag Seydou Diallo ci la bokk Seydou Diallo xam ngeen ko patriote la waaye li ci ëppale ci ñi nga xam ne ñu jàpp nañ nga ca bàyyeekoo sa Ziguinchor ah suñu waa jàng nii kii nga xam ne mooy Sonko daal wax dëgg yàlla ñu ngi koy saytu ci li nga xam ne moom mooy jàngoro nga wax dëgg yàlla. Euh, euh, demander que tous les détenus sympathisants ou patriotes qui sont en grève de la faim ñu arrêté ñooñu waa Benno yi ñoo koy wax wax dëgg yàlla Clédor exhiber les bulletins Clédor daal génn na wax dëgg yàlla état santé bi nga xam ne fii la euh, Sonko nekk ñu koy ñaanal li nga xam ne <coughs> moo ko def ci wér yaram yàlla ko yàlla saafaral ndax jàmmam mooy jàmm gu ne te gu ne ni ko bëgg yàlla ko yàlla jàmm ba sa bopp laa la manifestant yi amoon ca manifestation yi amoon ca Ziguinchor nee na ñett la ñoo fa gaañu. Mm-hmm. Mantu. Mm-hmm. Mari. oui mm-hmm. ndeysaan ñu ne ñett ñoo fa a gaañu. dëgg la oh, mu par par balle réelle ah. yàlla na doon wax ni docteur Seydou Diallo. ak ju ak huit cap huit de ses camarades maanaam juróom-ñett ay xaritam ñoom ñëpp yóbbu <laughs> problème quotidien